na ci carnet de voyage euh, ak euh, Bessel tey nag dañuy dem euh, ci dëkk boo xamee ni dafa am ab luuma marché hebdomadaire. dëkk boobu le nag di Sandiara mooy suñu carnet de voyage tey. waaw Pape Cheikh dañuy dem seetaan élément bi rek xam naa ne moom xam nga ñi sant Diallo dañu bëgg nag ak fas. Mm. bu ñu paree rek ñu xool ndax am Pape Cheikh dina ci am ay nag. incha allah ay ca machallah eyi komin garɓe ƴewde ɗum ɗo jeere nde hannde ko won heen nayi ɗi haɗa yeeya nagge ma e laydata neɗɗo tan haa ɗo dakkorɗon fof so dakkori so tawi mbo jogii kaali yoɓa nawa nagge so jogaaki kaali saɗa ɗum hoolino ñamla ɗum e so ñamaali ene ɓuri amen wonan porɗo capanɗe jeeɗiɗi ko ɓaɗo jeetas kon nag nak seerna de seerna ɗumnak kay surtout bi ku gën be tuuti gën a seer sax bi gën a tuuti mooy gën a seer boo xam ne danga koy xeeb ci sa xol hmm. te benn nga koy jot nga def fukki junni ak nan nga xam nag bi fi gën a seer ñaata la ah nag dafi jar téeméer ak nangam be million nag yi ñu yeew ba suur hmm. jar million am na bu nekk fële fay nañ ko 900000 borom bañ. Ah. mais ci luuma bi est-ce am ay jafe-jafe comme ñu sàcc nag yi wala leneen. Ah, fii nii waaw waaw bon sàggane hmm. guddi ñoom. Hmm. waaye bëccëg bi xam nga nit mënu fi dàq waaye dañuy sàcc léeg-léeg xaalis nga gis nit ñi dàqante ci biir kii ci biir luuma bi waaw ah, waaw yooyu bari nañ fi torop hmm. ñu sant sow. bu bari nañ. <laughs> yow yaa ngi toog say kalde papa. <laughs> déedéet ñu sant sow rek laa wax. ñu sant ñu ak séeréer yi ak séeréer yi. ah déedéet la ñuy sàcc mburu la ñuy sàcc ah. waaw waaw la ñu xotti kon mun nañu wax ne luuma bi sécurité bi des na fi daal amul sécurité amul sécurité duut duut ñun de suñu mënoon tey ñu ñu defal fi mbaar bu nga xam ne su toowee ñu nekk ci mbaar bi wala su naaj ñëwee ku mel ne man màggat yi ñu mun a toog ci kër gi loolu de suñu mënoon ñu am waaw nag jaay naa benn nag waaw ñooy fi <laughs> bàyyi leen si jàmm ah, ah, léegi jaay naa benn nag pël bi na ma seetlu an total xaalis eh, yi mami mo tottu moñu coggo para ah, ki coggo pare ha pare no portere no portere no jeyda jabani nayi man jeyda ndiɗa ngari a ndiɗo a ko jeyda noñu eh, eh, fot jeyda mbiɗa min nawa capantati voilà carnet de voyage Bangkok ak dëkk boobu la nga xam ne ni moo am marché hebdomadaire bu mag boobu la nga xam ne ni jaaykat yi fu ne la ñuy jóge parce que bu tabaski jotee sax wala yenn événement yi fa la nit ñi di demee wuti ji xar yi voilà ak ay ah. ay ay nag parce que loolu la ñu gën a ràññee si li nga xamante ne moom mooy euh, luumo Sandiara bi hmm. euh, mooy que ne tamit da ngay gis nit ñi comme ni nga ko waxee dañuy jóge fu ne di fa ñëw ah. euh, pour mën a jaay li nga xamante ne moom mooy ay fas ay ay ay ay nag jur daal lépp loo xam ne rek jur la dañ ko fay daal di indi waaye des fois nee nañu euh, dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yoo xam ne ni dafay daal di metti lool foofu nga xamante ne euh, moom mooy luuma bi parce que dafay daal di jaxasoo problème mu ndox tamit dañ koy euh, pour ñu mun ko jox jur yi ñu mën a naan waaye nag ñi ciy gën a bénéficié wu ci ci li nga xamante ne rek moom mooy luuma bi mooy jigéen ñi mm-hmm. parce que ñoom dañuy yàkkamti saa su ne luuma bi di am parce que bu luuma bi amee ñiy def restauration dañuy gën a jarle ah, jigéen ñi xamante ne tamit bu comme euh, béy nañu ba pare dañuy dem fori ji gerte euh, ci tool yi buñ ko indee tamit dafay gën a <coughs> donc jigéen ñi ñoom dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax parce que des fois da gis ñoom ñooy ndox mi tamit daal di indi euh, di ko jox jur yi ñu fay leen siwo cent francs deux cent francs voilà donc mu nekk loo xam ne ñoom da leen amal njëriñ mm. mais jafe yi tout le mooy wàllum sécurité bi nga xamante ne xaw na faa des parce que des fois da ngay gis jur boo xam ne dañ ko sàcc ñëw di ko fa jaay waaye nag dañuy sant yàlla tey parce que bu ñu xoolee ministre bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum jur mi am nañu ay jéego yu yu bëree yoo xam ne def nañ ko ci parce léegi ku am jur dañuy daal di marqué jur bi pour ñu xam ne diw. xàmmee quoi. Oh, ñu mën a tey même boo demee ci euh, beneen luuma boo xam ne du sànjara mm. nga yóbbu fa jur ba di ko jaay dinañu xam ne lii voilà dañu xam ne kan la dañu xam ne ndaxam da ko sàcc wala sàcculoo ko ah. kon mu nekk loo xam ne tamit lu am solo la parce que dafay daal di tamit naatal dëkk euh, euh, kaw yi parce que ñoom tamit luuma ba luuma la ñuy mën a def si li nga xamante moom mooy seen i business bopp comme ñun Dakar ni koy defee Pape Cheikh Diallo. très intéressant donc luuma boobu ma nga nekk dëkk bu ñu naan euh, Sandiara. ay euh, éleveurs ñoo fa nekk lépp la ñu fay jaay ah, ci wàllu jur ay nag. bëy xar tout ça bu tabaski jotee da ngay gis gars yi dañuy jóge fii. daal di dem ne nañu dem Sandiara xooli ji foofu waaw dem jënd fa xar parce que dañuy naan fa lay gën a yombee Mauritanie tamit boo demee. wax nga dëgg. <laughs> boo boo gisee tamit dañ fa bari sax fa la ñuy def seen xayma yooyu tant yi. Ah. di fa jaayee seeni xar xar. moo tabaski bu jotee même nii boo fa demee tamit bu ñu nee xar foofu la gën a yombee. Hmm. foofu nga xamante ne moom mooy Sandiara. macha allah macha allah macha allah oustaz yonent bi dafa dafa dafa bëggoon euh, ay ay ay yar ay ay jur. loolu la njëkk a def. waaw bu ñu laajee a liggéey. Ah. sàmm. Ah. sàmm la njëkk a liggéey moom yonent bi. sàmm la doon ci def commerce. macha allah ci penc mi la taxaw ne maa ngi dem. ku xool yërnu muy rasulullah yi nga dem sa gétt xool ba la fa gën a loof loof mooy lu jeex tàkk nga ne Muhammad ibn Abdullah di mënul sàmm génne loolu jox ko mu dem ñaari fan delsiwaat la nga ko la nga ko joxoon lu loof loolu duuf ndax sa waaji loxo yi lu mu laal mu barkeel moom rasulullah yi mu ñëwaat taxaw ci pénc mi ne maa ngi dem de mm. kenn ku ne génne sa gétt tegal rasulullah sàmm la njëkk a def mhm. abou taalib ne ko nag sàmm amul xaalis commerce ko ëpp xaalis mhm. nañ dem ci xadijatu mhm. te la ko boolee xadija ne ko sa mbokk la ndax Xuwaylid ma ko jur Asad jur ko Abdul Uzay jur ko Xusay jur ko yow Abdoulaye la jur Abdul Mutalib jur ko Hashim jur ko Abdul Manaf jur ko kon sa mbokk te la def commerce moom yonent bi waaye daan na yar yonent bi amoon na téeméeri juru kër téeméer bu daan nekk téeméer ak benn mu rey bi bu matee bu ëppee ñaar mu rey ñaar yi ah. bu manqué mu mottali benn ba keroog muy génn àddina ah. bu ñu la laajee rasulullah am na téeméeri giléem téeméeri xar maanaam ay xaraki nagaki maanaam dafa waaw jur gi jur gi ah. waaw am na benn arab yi boo xam ba mu tuubee yonent bi ko may maanaam euh, xur lu tolloo git ay xur may ko ko ay nagaki xaraki bëy waa ji dem jiital loolu waa dëkk bi ne ko da ngay sàmm léegi <coughs> mu ni sàmm ma de kii de ki ma ko may bu lay may du xalaat ñàkk mm-hmm. ki ma may lii bu lay may du xalaat ñàkk <coughs> xam nga loolu leneen yee cent mille yi de su ma ko ma mayee kii trente mille yi li ci des du bari. dëgg la besel baas. allahu akbar ci koy lii de kii de su ma ko mayee lii. Hmm. waaye waa ji ne rasulullah moom bu lay may du xalaat ñàkk. Hmm. dafa fonkoon jur moom moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam. waaw ba pare juru kër yi kenn ku ci nekk dafa la joxoon tur. waaw dafa la joxoon tur noonu la fokkee woon ay ay xaraki naga ki ay même ay fas amoon na fas bu njëkk xare mi ngi tudd sakbu daan na war mbaam ma nga tudd daan na war bax la ma nga tudd dul dul giléem gi mu war génn màkk dem Medina ma nga tudd xadbaa u moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw amoon na xar bu tudd xawsa waaw bi xawsin doxiyat waaw aw xaysatun yamanu waaw chaatun lahu xamarun oddat fala tay waa jàng mi din kenn du moom lépp la fonk lépp la fonk waa jàng mi din sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam beseen nii nga baax na juru kër baax na wallaay baax na tamit bu ñu demee si luumo yi eh. ñi nga xamante dañuy jënd jur pour ñu def ko si seen euh, gëtt yi mhm. euh, dafa am nag ay jur yoo xam ne ni ñoom bu ñu demee dañuy xam ne jur bi buñ ko jëndee mhm. yokk ko si gëtt bi dafay gën day yokk voilà day ah, yokk loolu tamit da ci nekk loo xam ne lu am solo mais mhm. ñoom sàmmkat yi ñoom ñoo koy xam euh, si seen si seen biir entre ñoom Pape Cheikh moo tax des fois nga dem ñu ne la jaay ma nag bi ñu ne la bii du jaay ah, dafa am lu tax d'accord d'accord d'accord <laughs> d'accord c'est bien en tout cas ñu ngi lay gërëm ci li nga ñu wanalee ak marché hebdomadaire boobu lay diplôme bu nekk ci dëkk bu ñu naan Sandiara ñu ngi la ci gërëm bu baax Bessél